بناج المصطفى سنتي البيداء يا من اصطفى يا خافر الذنوب يا خريب إني عبيدنا هنا خريب لأبساك والإخوان الجميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي في عسى دعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في مقاسمي وللسويدين بجاه قاسم ولكسفا الليل الأوال بهما بحرمة المعبود إبراهيم وليسق العلال طيب وخير جيران يا طيب وسفني في باطن وساعر وربي قلب يا ختائر وسفني في باطن وسائر وربي الخلق بها فتاعي ورقني ترقية خفية ببنت عين رقية صفية وقياسا أخربا وأنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى العيامة وليج ربي بون خاتمة هنا وفي خد بجاه فاتمة. joxe lu toll nii ngir yàlla. ak jëmmi sëñ Tuubaa ngir ngir ngir ngir dundal li fi sëriñ bi bàyyi woon loo defoon lu ne rek lu toll noonu dellu ko la ci. asalaamaaleykum bu ñu ko toppee du jeex ndax toogaay bi dama ko yërëm sëñ bi dama ci yërëm sëñ bi jërëjëf. jërëjëf sëñ Ibrahima kon déglu kàddu la. suñu borom moo wax ci alxuraan yi buñ sëlmalatee jumaa nañu tasaaroo waaye nag koo tax ñu foog ñu leeral fadlullaahi nag mu fas yoroon ñu ko firee. mooy dirham ngir ma arsh te nga jug sàkku ji loo dundee sa bopp ak sa njaboot waaye nga sàkku ji yiwu yàlla yiwu yàlla nga jotaay bi kon ci la bokk kon daanaka amul lu ci waxaat ndax suñu soxla mag yow liñ ci waroon a leeral lépp fàttali juddit bi li ko war ci ñun borom bi ñu ci àdduna bu dee ci li waral dëkk gi nag ak sabab si sëriñ Cheikh Ibn Bakki mu moom Cheikh Mamadou Mountakha kàddu yi war ci waroon ci sëriñ ak moom wax na lépp kon daanaka sant ginnaaw boobu ñu ngi jotee liggéey ci ki fi nekk Serigne Touba di as Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne ñëpp xam ne ne amul benn bëgg-bëgg wala jën yitte lu ma liggéey Serigne Touba te lépp lu muy def ku ma ko salbul ixtiyaar ci moom ndax yéeg yéeg rek lay demee. ndax bisu xasida ba keroog ñu ngi bi fi suñu mel ne ci la ko la ko dikke dikke boobu yëpp la mu waxoon daa dafa waxoon ne suñu borom moo ko santaane jàpp naa ne nag. li ñuy tinoo di ci sàkku yërmaale yàlla ak ndimbal ak njëgëram bare jiitu ci xasiide Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne lépp tadaru ilallaahi la lépp asanaaw alallaahi la lépp asalaatu ala nabi la ba mu ko defee it la mu waxoon ñëpp digg na ko daa waxoon ne suñ borom moo santaane ne ko ñëpp ñaan waaye nag la la see topp na suñu yoon néew ca waaye suñ borom fu mu toll yàlla dana ko rus wa ma kaana llaahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kaana llaahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruun wa hum yastaghfiruun ji kon ba àddina tukki leen moom nag dafa bokk ci ñi nga xam ne suñu borom rus na ko lépp lu mu bëgg rek da Serigne Saliou Mbacké daa wax ne ñaan yaakaar ju tas miinu doon ko Serigne Touba waaye Cheikh Mouhamadou tax lépp lu mu yëkkati suñ borom dana ko ci ndax loolu mi tafee ak li diggante fa lii mu woote ba ci démb itam mooy bisu zikrullahi amma dawaamu zikri fa huwa akbar min kilima kaanal muridu yuksiru fa kullu man sa'alani fa di jawaab qabla wala tujaadilu ahlal kitaab wala zikrullahi akbar noonu la ko suñ borom waxee ci alxuraan mu wax nag ne zikrullahi rek ndegam mu gën a màgg lépp kon yëg-yëg bi mu am mooy dellu ci yàlla waxal na ko boppam ndax lépp lu ñu def rek nee na li ñu war a njëkk def mooy sant yàlla mi nga xam ne mooy xaalisu kulli shay'in moo bind lépp te moo ñu tawféex la ñu boole boole ñu Serigne Touba bu ñu koy sant nag la jiitu ci ñu war a def mooy yëkkati ak màggal mooy ci kuréel ci biir loolu nag mu wax ne sant yàlla ci boole gi mu boole ak Serigne Touba defal ñu ci tawféex mu wax nag ne yëg-yëg bi mu ci am nag mooy Cheikh Ibra ñëpp xam nañ ne. buñ jëriñoo ci Serigne Touba ginnaaw yàlla ci moom la ko suñu borom jaarale ndax Serigne Touba mës ta wax ne ñëw leen topp ma daa woote rek wax li ko yàlla digal mu jug jëm ca moom nag moo wax nit ñi ni war a jëriñoo ci sëñ bi waaye Serigne Touba ñëw leen topp ma ñëw leen jox ma xor ma kenn mënu ko wax kon buñ jëriñoo ci Serigne bi faaw ñu sant ko ko moo tax mu ne mu doon delloo ko njukkal Cheikh Ibrahima yëg-yëg boobu lu ci am kon moom lépp lu mu def rek te ku ko ku ko xam ñaari fa di yëg gis mbégte mi mi mi mi nekkee ak yëg-yëg bi mu nekkee da nga xam ne lam ca wax lam ca nëbb moo moo gën a xóot ndax moom bii rek wax na ma ci loo xam ne xaw ma sax danaa ko mën a wax ci mbooloo mi ndax am na ci doo xam ne mu su ko wax ñëpp di ko dégg waaye nee na ma bokk rek ci leen ci jublu daal ñëpp gën a tàggatu ci hectare bi tàggatu ci hectare bi rek nee génnewu ci kenn loolu wax na kon yëg-yëg bu xóot la ci ñëpp laa jëfasal ku ñëw ak ku ndax te jàpp naa ne ñëpp xañ nañ ci ndax laa ilaaha illallaah lu ñëpp di war a fàttaliku la ndax suñu borom dafa wax ci alquran inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru maa duuna zalika lépp lu dul bokkaale jàll rek suñu borom mën na ko jigéen waaye bokkaale du ko jigéen laa ilaha illa allah nag foo ko waxee rek mooy xamle ne lu dul lu dul suñu borom rek mbindeef la kon loolu dellu ci yàlla la ak gën a daw ak bokkaale ndax bokkaale Sëriñ Tuubaa ko bañoonu bokkaale la képp ku ma sotool ci jotaay bi boo bokkaalee rek dana la xàjj fi sens boo naree jàll mu dagg wàll. kon loolu Cheikh Mawud Mountakha delloo yi delloo nii ci tawhid ci pësteef buur bokk na ci la ci kon nag Serigne Abo ngi lay sant bu baax di la gërëm ci naalu réew yi nga xam ne andi na la ndax. naa damay fàttali rek sëriñ Abdul Ahad Mbacké ba mu gën a jee alxaaj bi yow bi dafa am koo xam ne ci yooyu jamono bokkoon na ci ñëpp xaalis si réew siiw la ñëpp daa daw dem ci buntam di ko di fa xaalis mu yëkkat xaalis ba di ko mu jàpp na nag Cheikh Abdul Ahad defal na ko alxaaj bi yow kenn rek war na ko maa defal mu ñëw sàkku ci wu ne ko doo bëgg nga gane sa ni nga defee jiw ak yow Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ko damaa yor ndénkaanu jàmbur ndénkaanu jàmbur rek fu ma neexee si tukku ko gërëm si waaye xaalis bi tax moo tax moo nga ne bul yeewi kenn. ndax bëgg na ñëpp xam possible tax ñu kon nag këram gii bu yàlla defee waxuma ci njabootu ñu sant Mbàkke di njabootu Sëriñ Tuuba waaye njabootu Sëriñ Mbàkke Buso Sëriñ Mbàkke Buso ku ne xam na bi kon kenn jiitu nañ ci sëriñ bi ndax day toll ñoom dañoo àndaale ak sëriñ est-ce que bët yëpp wax muy wax xool ci njëkk a jëblu ci biir wax ji maa jëriñ loolu da neexut a xam ndax boo xoolee ku mel ne maam Thierno koo xam ne bis boobu beneen adduna daanaka suñ bàkk aussi attel loolu la suñ son bi daana ko dégg ci laam ñoom daa ko dégg kon loolu moom doy na sëkk ginnaaw sëriñ bi diñ koy indi Tuubaa moo taxaw sëriñ bi wax ma ne ko sëriñ bi wax loolu nga xam ne ñëpp dañ ko daa wax naan yaay ilimaan yooyu kon ku fu ak njabootam wàcc la Cheikh Ahmadou Sakhir Mbaye bokk ci nit yàlla yu mag yi waxante woon ak Cheikh Mahamadou Farid ba mu fa ñëwee lillahi qawmun iza xallu min sidatin xallan nada وحلت في الجو ألوان تستاقهم كل أرض ينزلون بها كأنهم ببقاع الأرض أمطار mu tontu ko ne ko isa laqitahum aw kunta zairahum bi yumnihim faaraqaka dahra aw zaahum kon sa kër gi jàpp na barke wàcc na fi ndax ña fi ña fi daa ñëw ku ma de si ñëw xëy xaw ma sa fi ñëw dëgg moo ko sañ si ñun xarit masama léegi ci laaj ñoom ak si ñun seen xarit mu koy nekk li ne ko bis Sëriñ Tuubaa da woo. di ko teral ne ko damay sant yàlla ci ndax defar nit ba defar doomu xam mu Sëriñ Tuubaa waxoon ne moom am ci liggéeyam bu borom buñ ko waxoon fii dana jaaxal ñu bëri suñu xarit yàlla nekk man ma teel am tawfeex ci moom. mu bokk ci defar seen tubaab dégg nga Cheikh Ibrahima dégg ngeen ci bët yi rek am na ko nekk ci mu jaar ci wàllu yi mu bokk nit yàlla kon nit yàlla yi fuñ daa jaar loolu rek lu ne nii rek laa ñëw mooy def ko néew yàlla bu àndal message bi ñu nekk dafa doon moo lay àndal dañ xam ne néew suñu ko néew yàlla amul amul xaj amul seen képp kuy tuddoo ak jullit da caa bokk. kon nag bu yàlla def ne ñun ñi nga xam ne yaakaar ne sëñ sëriñ Tuubaa rek suñ ko seet àgg na ci lépp luñ jëf ci lu baax rek lu ci teew def nañ ko àggee sëñ Tuubaa kon loolu loolu nga defal kon jëf ji nga jëf bëgg ko jëf yàlla ko suñ borom moom la tàmbal ko ci ijaal buyuti kullaha masajida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fi sa'in wa batini wa bil qubur وكن معيسنا من الوباء وكل ناس من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجم قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه ناسعين وصلي أزكى صلاة ndax Abou Sall dafay murid sadix yaakaar waa Gédé di taalibe bi sëñ Mbacke Bousso sëñ ba sëñ Mbacke Bousso di maamam ci wàll yépp wàll génnu ci benn yoon sëñ Mbacke Bousso kon tey bu fi ñëwee mu toj këram def ko jumaa sëñ bi war a seet ci liggéey bi ànd ak ñoom julli gi aboo day murit saadix boo xam ne bii daa dëggal murit bu dëggal nag dara jomb la moo tax tey lii mu tey ngay gis rëg-rëg ji ak kër-kër ji lépp dara waralu ko lu muy sëriñ Tuubaa aboo nag léppam gede la léppam sëriñ Mbàkke Buso la léppam sëriñ Tuubaa la mu juddoo Gédé yare fa màgge fa ba ñu aboo Gédé kon tey su wootee lu mel nii sëñ bi ñëw ànd ak njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp ci ndigal ak Cheikh Amadou Mountakha ndax seex Cheikh dul Bassir lu mu def rek ci ndigal la ko def démb la jógee tuubaa ci sëriñ bi barki démb la fi jógee de waaye dem ci eh, eh, li sëñ bi santaane woon muy sikkarulaahi kenn laat Cheikh Ibrahima Fall fedd liwaat diggante Cheikh Ibrahima ak sëriñ Touba. mu dem ci ñëwaat tey lépp ci ndigal la ko def sëñ Bas fu mu dugg baa ngi seen ko fa ndigal si xamatu Muntaxa la loolu sax mu ñëw nag ànd ak njaboot gi ak bokk yi ak xarit yi fekk si Abou Sall wax naa ko léegi ne ko ni ko jëf na bis bopp ci nijaayam bis boobu rek jar na yeen kenn day bi nijaay yi sëriñ bi ki bokk ak ndeyam lépp nelewe fii ci principal mu ni deesu ko def ci kees galaas du ko laal dugal ko ci biir kaat kaatam sotti ko sikki indi ko Touba dencal ko boppam loolu kenn la tey li fay na ko waaw loolu rek tax sëriñ bi ñëw loolu rek tax sëriñ bi ñëw. waaw xam nga wenn heures yu ñuy wax baatub laa ilaaha illallah lu mun munta faj dara munu ko faj sëñ Muntaxa lépp mbiri biir la sikkar baatub laa ilaaha illallah li mu man dara mënu ko nga def lu ko 24 heures waaw oh, bu ñu ko arrêté rek dañuy nodd baa ñuy julli. loolu sëñ Muntaxa rek ko mas a def waaw ku def lu rëy nag am lu rëy. ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yi di ci jiital sëriñ bi sëriñ Bachir di ko ñaanal yàgg fi teewer di nuyu borom kër gi Baye Abo Sall nga xam ne tey bis la ba spécial boo xamante ni. Euh, Serigne euh, Bachir moom sëñ Abdou Khadir dafa ñëw ngir lu rëy lii nga xamante ni Baye Abo def na ko muy tabaxal suñu borom néeg nga xam ne suñu borom dafa wax ni man bana lillahi masjidan banallahu lahu qasran fil janna képp koo xamante ne tabaxal na suñu borom jàkka suñu borom na ko tabaxal jënd ci àjjana waaye gox bii nag di cité Sotiba mu tumburanke woon ko lool ndax ku ne euh, ku fi dëkk rek xam ma ni mu demee woon waaye ñuy sant yàlla bu baax bi nga xamante ni Covid bi am na am ñu tëj jàkka yi jël euh, jàkkaam ubbi ko ñu ñëw di ci julli juma ba yàlla def tey jii nii mu nekk juma joo xamante ne naal nañ ko di ñaan suñu boroom mu sotteeg jàmm nga xam ni waa cité sëti baay yëpp dégg nañ si baay aboo te dafa mel ne daf ñu indil tuubaa ci gox bi ndax tumuranke woon na fi lool képp ku fi jullee juma rek soxol sedd na di sant nag imam bi euh, sëriñ Massamba Bousso nga xamante ni moom euh, ni ko waa Touba di defee rek noonu lañ koy defee nga xamante ni suñu xol dafa sedd guy di ñaan suñu borom ko fi mu gën nag tey ngeen ñëw di pikin ci kër sunu wayjur Serigne Abo Sall tey mu am ziar boo xam ne Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Cheikh Abdul Qadir moo koy gane si ci ndigalul Cheikh Mahamadul Muntaxa li tax nag mu koy ganasi mooy benn projet bu ñu war a def fii ci kër ga nga xam ne fa lañ moom la njëkk am mu nekkoon kër goo xam ne ku ne seet si na ko fa ci ay doomi Cheikhul Xadim yu góor ak yu jigéen ci ay sëriñëm tamit ci wàllum busoobe waa kër suñu Mbàkke Busoo waa kër suñu Masamba Faati kër goo nga xam ne moom la njëkk am ba mu koy sanc ab sëriñu boppam di sëriñ Modou Xëri moom moo ñëw sañ ci kër gi mu nekk kon bërëb boo xam ne mu nekk bë mu nekk bërëb boo xam ne bërëb bu sell la ndax bërëb la koy tax mu sell mooy nit ñu baax ña ñëw bi yàlla dogalee nag yàlla dogal mu am laneen te la laneen la mu am xaj na fa mu ne kon nag fii ma njëkkoon a am daal du ma ko defaraat nan maa ngi ciy dëkk waaye dama koy may yàlla ndax comme que ku baax ku teew na fi te bërëb moom day tax mu sell day tax mu baax mooy ñu baax ña fa ñëw comme ni ñu ko yàlla waxee ci alquranul karim ci sóoratul kahfi waa asaabul kahfi it bañ jaaree ci xuntuma xuntuma dafa mujj sell même fii sax ci Sénégal fépp foo xam ne rek Cheikhul Khadim mës na faa jaar dañ naan foofu bërëb bu sell la dañ fay def jàkka dafa julli wala ñu fay def lu mel noonu. mooy ne comme que nag bërëb bi nga xam ne moom laa njëkk am ci kër moom la yàlla njëkk may nit ñu baax ñëpp daan ma fi seet sama sëriñ suñu moo xëy na ñoo sanc ko doomu suñu tuwaay dañ fi ñëw di ma fi yabal ay nit timit ñu ma fiy fekk kon daal comme que yàlla may ne man la neen naa ko def jàkk bi loolu amee nag ab taalibe moom du def leen ci lu ndigal moo dem laaj ndigal Cheikh Mahmoudul Mountakha xalif général des Mourides Cheikh Mahmoudul Mountakha jox ko ndigal ne ko loola mën na koo def sañ na koo def na ko def comme que jàkka woon léegi na ko def juma ndax jàkk ji naka jekk amoon na fi mais na ko def juma bi mu ko waxee loolu nag yabal Serigne Omar mi nga xam ne doom la ci suñu mbooru xëri ci kilifteefu Serigne Bàcc Bousso muy xalifa suñu mbooru xëri ak ci kilifteefu Serigne Omar Bousso mi nga xam ne mooy mbusoo bi nga xam ne kilifa mbusoo bi yëpp Serigne Omar ñëw ànd ak ay rakkam Serigne Jili Bousso mi nga xam ne moo nekkoon imam bi fii di jiite julli yu juróom ak ma Massamba bi nga xam ne doomam la di ñuy jiite ajjuma ajjuma ji ngeen ngeen gis léegi ñu julli ko ma ñu ko jiite ñoom nag ñu ànd tat ñu tax xeer yi bëgg fay def nag jumaa joo xam ne dañuy def jumaa ca kaw tamit am ay classes yoo xam ne dañ fi mën di jàngale diine di fi jàngale lislaam koo xam ne dëkk bi la la réer ci sabalu diine boo dikkee ñu mën na ko fay xamal kon lu mel noonu nag moo taxoon moo ko taxoon a jug bi loolu amee nag Cheikh Mamadou Bachir di porte porte président des Mourides sëriñ Mountakha yabal ko ni ko na ñëw xool ci liggéey boobu na ñëw parce que moom boo bëggoon naa ñëw su ko jota mayoon waaye nag comme que ah, tànkam diis na lool mu yabal Cheikh Mamadou Bachir ma nga xam ne fu mu teew rek mel na ne Cheikh Mamadou Mountakha moo fa teew ba mu dikkee tamit fekk suñu bàyyi bi sëriñ Abo Sall Euh, mi nga xamee ne waajur la ci ñun ndax ay doomam ñoo suñuy xarit ñu yàgg ànd ak ñoom yàgg xamante ak ñoom ñu nekkit ay jullit di ay taalibe yu baax di nag la nga xam ca moom mooy la ngay seere ca moom te ni bala koo xam nga dëkk ak ñoom man na gannaaw ba ma dëkkee ak ñoom xam naa ci ñoom ay jikko yu baax wax naa ko léegi ci jàkka ji daan nañ ñoom di ay nit lañ ñoo xam ne laway la waykatu arab ba waxoon daan ne laa ayba fiihim siwa anna nazila bihim yaslu an al ahli wal awtaani wal xachami benn ayib lañ am mooy ni ku jaxasoog ñoom fàtte say bokk ngir baax guñ baax ak teegul ndey téye kon nag ba Bachir loola waral mu ñëw ngir ziyaara bi ñu amee nag Serigne Abo yëgal ko mbokk yi yëgal ko am di jàmm yi yëgal ko dëkkandoo yi ak taariba yi ñëpp wax dëgg yàlla teew ñooñu teew nag mi ngi leen sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee amul fu mu yem cant googu nag kam ci jiital mooy Baye sëriñ Bousso mi nga xamee ni moom moo képp kuy Boussowee rek tey ci kaw suuf moom mooy xalifa bi ndax mooy xalifa Serigne Bousso bi nga xamee ni moom mooy nijaayu Cheikhul Khadim te ñoom ñii te moom mii ñooñu di ay sëriñam kon ma nga jiital ca cant googee bay sëriñ Bousso bi boo ko santee ba noppi nag di ca teg sëriñ Omar Bousso mu nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mbàkke Bousso ndax kër gi kër sëriñ Omar Bousso la mi nga xam ne xalifa sëriñ Mbàkke Bousso lay gede mooy li fii rek gannaaw leen mi nga sëriñ Bàcc mi nga xam mooy xalifa sëriñam suñ Moodu Xari sant ñoom suñ Omar di tamit ñoom suñ Jiili Bousso imam ak suñ Masamba ñi nga xam ñoo fi nekk dëkk ak moom di ko taxawu ci wàllu diine ji ñooñu ma leen sant bu baax a baax gannaaw leen ma ngi mi ngi sant mboole bu mbokk yi teew sëriñ sëriñ Cheikh Kane li nga xam ne xalifa euh, Touba Kane moom it teew na mi ngi koy sant bu baax di ko di ko di ko di ko di ko sant sëriñ maam moo rakkamit teew na sëriñ Assall magam moom Baye Abo mii bokk ak moom lépp moom it teew na fi moom ñu ngi ko sant bu baax te di ko gërëm di sant it xarit yi Oustaz Cheikh Gueye ñëw na te ñu xam ko ak moom lool moom it teew na fi ñi fi teew ñëpp mëneesu leen a lim ci ay dëkkandoo ci ay xarit ci ay am di jàmm ci ay taalibe ñooñu ñëpp nag mi ngi sant cant goo xam ne am na fa ma tàmbale waaye amul fa ma yem waaye nag di sant tamit njabootu boppam doomam yëpp ak i soxnaa mi ngi leen sant ndax it ñoom it ba nga xamee ne Serigne Mountakha joxe na ndigal ne Serigne Bachirou dafay ñëw ajjuma si ñoom ñëpp taxaw nañ ànd ko ak moom ngir lii mu mën ci am ndam mën a réussir na mu ko bëggee kon ñoom it mi ngi leen sant bu baax baax sant ay soxnaam sant it ak njabootu boppam doomam yëpp mi leen di sant di sant dëkkandoo yi ndax dafa dëkk fii ci koñ bi cité cité bi yàlla may ko ay dëkkandoo yu baax dëkkandoo yoo xam ne nii lépp lu nekk ñu nekk ci ak moom lépp lu lépp lépp lu mu bëgg ñu fekk si ko ca dëkkandoo yooyu na ànd ak moom ñoom it ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm ndax dëkkandoo moo ëpp ak daanaka ci ku mën a doon te dëkkin bi rafet na wax dëgg yàlla ñëpp lay sant ci dëkkandoo yi ngir teew gi ak rafetaay bi di leen sant tamit yéen ñi nga xam ne yéen fi teew yéen journalistes yi ah, ci couvrir bi ngeen couvrir événement bi yéen ñi leen sant bu baax a baax te di leen ci gërëm te di leen ñaanal yàlla yàlla dafa leen ndam ci seenu liggéey والكسر واليان والسعادة وأجل أن أمة خير المرسلين وفرجا جميعهم جميعا يا علي وروى باريس معا في كلهم وناجي وتوبي واغفر لهم ويلي يا ربي من اعظم الانباء انك عسل ونصيبا في التمام وجلني يا ربي من اعظم الانباء di leen teral di leen gànn gàttandu ba loola doy leen am nuyoo waaye nañu xam ni ku ci nekk ñaan gi dana leen ko fekk te kenn du leen ci ëppale ndax kenn ëppale wu leen ci teraanga yi te loolu ñun ñëpp xam nañ ko kër gi kërug sëriñ bi la kërug taalibe la kërug ñëpp la boo fi ñëwee lépp loo sañ sa kër sañ nga ko fi illa lazi arramahu taarix bu jàngoon ngeen ko sëriñ bi danaan wax ni kër gii ma moom day ku fi ñëw lépp ak maa yow a ci yem lu dul lu yàlla araamal bu ma ko fi sañee sañ nga ko fi loolu moo xew fii tey kon yal na yàlla boole sàmm leen sàmm njaboot gi dëgëral leen dëgëral njaboot gi te nu gën a góor ci tànk yi nga xam ni de gën a góorgóorlu ci li nga xam ne moom la ñuy séentoo doomu aadama ju ne lañ koy séentoo na ko fonk te Serigne Touba dañu woon na ngeen fexe ba bu leen yàq sama der ñu ne ko lu yàq sa der mooy nekk fi barab te la yàlla digle yaa ca gën a gàttañlu la yàlla tere yaa ca man ku ko def boo ma tuddoo yàq nga sabab der kon bu leen ko def sëñ Mokhtar Binta Lo ñoom rek nee na toog naa bis maag sëriñ Modou Moustapha ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi ni ma Mokhtar mbaa du ngeen jaamu xiram sama ginnaaw ñu ko mu ni ko luy jaamu xiram mu ni ko ëllëg sama ginnaaw nit ku ñëw di tuddoo sama tur wi ak di tedd sama barke bi te li yàlla digle du ca def dara li yàlla tere du ca bàyyi dara kooku boo ko màggalee yëkkati jaamu nga xëram lii sëñ Modou Moustapha doomam la ko wax ak Cheikh Mouta Mokhtar Bintaloo xaritam dib taalibe lu tax ma wax xarit akub taalibe dana leer keroog ba ñuy teg première peeru jumaa yi njaareem Cheikh Muxtaar Bintaloo ku ne la booba waaye sëriñ bi ni si géej bi ñu ko tegalee ndabul ciment bi mu ne ana Muxtaar Bintaloo ñu woo ko ca ginnaaw fa gune ya war a nekk muy jéggat ba si sëñ bi jox ko tureel bi jàng la mu jàngoon mu jàngaat ko nam ko jàngoon ñu def ko kon kooku du gune kenn du gune kenn dafa am ñoo xam ni dañ leen doon tuddee guney sëriñ bi waaye boobu ca mag ña la bokk ñooñee sëñ Moulay Moussa bokkoon na ca ba mu dikkee dañ koo boole ca gone ye ba ñuy lim ba ko fa bàyyam joxee waaye ba mu jàkkaarloog sëriñ bi keroog la ko sëriñ bi nobe boole ko ca mag mu daal di kii ma sëriñ bi andi ilayka qiyaadi musri an saama sarratin bi naylil muna wal fadli al isni walidi ku ne bu ndawaay wax mu ne tey ñëw naa di wammete ci koo xam ne wóor na ma ni liggéeye ko képp moo di liggéey sama ndigalul waajur moo ma indi fii ma dik fas ko yéenee liggéey laqad asama arrahmanu quddaamahu ma an min annaari li faxril amajidi te gën naa ni ku ko liggéeyal ëllëg da bokk ci gaayay tedd ngir lan li ma gis mu di ko def di ngeen ciy dégg lu baax daf ni yusalli imaman yaqumu layali raaki'an ba'da sawmihi yusalli imaman bil mala fil masajidi mu ni kii ma gis nga xam ne day woor bëccëg yëpp di julli guddi yëpp di jiite gaa yi te jàkka ja lu tax mu laay xele boobu bi mu ñëwee loolu lay naw ci kër gi nawul sàkket yi mu gisul kër baayam nawul néeg yu rafet yam ko gisul nawul itam cere lay yu bari yi waaye rakk yu bari yañ ko yare alquran jañ ko yare ba mu dikkee moom képp lay xool ci kër gi loolu la jëkk a gis ci Serigne Bamba loolu mooy liggéey bi nanu yar gune ci suñu diine ji buñ ko defee insha allahu taala buñ demoon ba Amérique it waa diine képp lañ fay xaritool sëñ aboo nee na mi ngi gërëm imaam yi imaam yi koñ bi kenn manquéwul ñoom ñëpp taxaw nañ ci ngan gi sëriñ bi àndandoo ci di ànd ak moom ci mbégte mi te loolu yàgg nañ ko def fii lu fi ma a xew rek benn imam ci quartier bi du ta du tardé benn notable du tardé ndax aboo leen ko ji moo ñëw ubbi ay buntam ñëpp bokk bu màggal jotee fii la ñuy tegale ay kaar xotti ay mbubb moo xam murit nga xaadir nga tiijaan nga solal ci mbubb yi dugg ci kaar yi dem lekk ca ñam ya wasifaal ñibbisi loolu la leen di defal ca Touba kon nag moo yey ñuy ñëw ci dëkk bi kon jërëjëf yal leen yàlla boole taxaw yàlla sàmm leen sañ aboo yal na yàlla sàmm te taxawu la yaag njaboot di la ciy jàppale ñoom itam góor nañu xale yi ñu ngi taxaw tem li nga bëgg rek la ñu bëgg li nga bëgg rek lañu bëgg foo leen joxañ foofa lañu ñu jëm loolu laa seede kon nag ñoom itam yal na leen yàlla gën a dëgëral saxal leen te euh, teeru leen lépp luy teraanga yal na ko yàlla teg ci seen loxo bi barakati rasulillahi sallallahu mu ñaan jërëjëf وجربا مسكنا اتباعي لسنة الله مسكن واجعله يا ربي باب مسكني في أرضنا لك وللمعزين والدعم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدور وان في الوباء والبلايا كلها عنا وطي شربها واكلا وجل ريما ريما امنا وكن بعصيك في الأمدان نام واجلب لها الخير من الجهات أسد وفيها أن العافات خذني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما حول يا الله يا فيز يا سلام يا بايع الخلق ما بالخير yàllaahu yaa xafiisu yaa sal amri yaa bàyyi xalxal ximaan bil xaari nafsi wa diini sumaali wal baraat wa maskani laka wadiyatul abaat nafsi wa diini sumaali wal baraat wa maskani laka wadiyatul abaat waa kasa دنياي ما أخرايا ففيهما أن يذرف رزايا واضرب سبع ناري عن جملة من بأتى لخو من أبناء زمن وجملة إخواني من مخاربي في الدين أو في ديني ولا جانبي فليكن إن وضع يا صمد تولني ولا تكلني لعاد وارم جميع المسلمين برا وصليا وسلما سرمدا وارم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا هلا محمد وسيلة لك هل يا مزلم